Calcio bu Ikiri doo doyaat Calcio bu Gambie sama gauche maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy bébé Elton bébé Elton mbokk yi moo ngi nekk fi nga xamante ni mooy école de lutte Balla Gaye ma bàyyi leen ñu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi bébé Elton nuyu naa la. waa Dame Ndeye maa lay fay ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yont bi maa ngi sant sama ñaari waajur di sant waa Géejawaay ñëpp di sant sama sëriñ sëñ Ousseynou Mbacke mu sëñ Ateex di sant képp kuy bëggee bébé Elton di sant waa Thiès Ngaay àllub kaañ xama waa Dagana Fuuta ñëpp maa leen di bëggee parce que fépp fépp euh, fépp fi ma lim nii yëpp suñu sama supporter ñoo fa ne <laughs> yaa may dégg uh-huh. waa di leen bëggee ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm waa parce que Bébé Elton bu jugee rek ñii ma lim ñi ñëpp dañuy bàyyi lépp lu ñu am xama ak lépp lu ñu yor jox ma ko ma def mm-hmm. waaw bis bu ma am dañ ciy sonn daj ci ay coono yu métti di sant Cissé téléphone daf may jàppale kooku nu ma mel moom la sant ndongo kolobaan may sa sant yàlla boutique di sant képp kuy jàppale bébé Elton waaw di sant Fallou Ndiaye nag bu baax sama xarit la sama lépp la waaw. Fallou Ndiaye man Fallou Ndiaye man men waaw. ka ma moo ko tëgg. Fallou Ndiaye moo tëgg nekk sa waay. sama xarit la. Ah. waa gis ngeen boo koy nuyoo bi am na solo ma ñëw ci ki nga xamante ni mooy Kalso Kalso nuyu naa la. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi sar sarbone yoo bone e ba yoo jam e dam yeeso bisimilahi sarbone sar sarbone yoo bone e ba yoo jam e yeeso laatin faatin jaabaan muskoora kumba bete sire bete ginnaaw yàlla bi ma. xanaa li jat la. waaw jat la. ayca boobu. laatin fatin jat bi de mosu koo jariñ. <laughs> te nga noppi moom moo gën. dañuy soog a commencé rek. da ngeen doog a maa ngi sant bu <laughs> baax maa ngi sant maa ngi maa ngi maa ngi gërëm euh, maa ngi julli ci Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu a wa sallam. <laughs> Ouzin kii dafa affaire la mi ngi tremblé le. di sant kii dafa di sant sama yi ngeen def ni bu la neexee après sa dugal ñu fee. bu la neex mu dugal fee. dañ laa nuyoo loo waxuñu la ngay trembler. di tiit yaa ngi lox moo ma gën da ngay wax damaa noppi. waaw doon noppi. yaa ngi sa watu sidee rama bi yaa ngi déglu mu lay sukkee Ouzin maa ngi sant bu baax sama ñaari waajur di sant waa parcelle 1 ba 26 di sant nag sama waa koñ. Mhm. waa Inte 4. bàyyiwuma kenn ñoom booy may jàppale yëpp yëpp sama rakk yeeg ñëpp ñoom bàyyiwuma kenn ñoom sabali ñoom booy Jóob booy Jóob xam na boppam ay Moussa Ndiaye. ay ñoom Zal Malick Diatta famille Diatta jaata yi ñu ne foofu noonu Daouda Ndiaye sama rakk ñoom Ousmane ma kenn waa koñ bi ñëpp di sant tamit waa Gambie di jël nuyoo di ko teg ci sama benn grand bu baax ñu koy wax Baye Zal di wax mu joxal ma ko waa Kaos bu jugee foofu mu joxal ma ko Tamsir Tamsir taximan Tamsir nag ma ko joxal waa Gambie yëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn nag ñoom fifty ñoom ñëpp daal bàyyiwuma kenn di sant sama waa dëkk Afghanistan di koy sant moom mi lu tax nga koy sant. ah lu tax nga koy sant. non moom nit bu fekkee da ngeen a bokk plateau da nga ko war a nuyu moom xam nga nuyu ma dama ko delloo ñu ko di koy nuyu. xam naa moom xam naa moom amul savoir vivre quoi li tubaab naan savoir vivre amu ko. kon savoir vivre. waaw ah, moom moo tax ma koy. kon kon maa lay fay. Hmm. maa lay fay. mbokk yi gis ngeen nii lay demee ci jàmmaarloo tey ñoom ñaar laa dalal waaye mbokk yi jàmmaarloo bu neex a ngi nii jàmmaarloo boo xamante ni gëm naa ne yi fi daw jotagum daw yëpp neex na nag trop. waaye gëm naa ne bii moo ci daax mais Kalso euh, dama la gis fan yi nga jóge ci komba jóge ci combat euh, ba nga fay jóge euh, kii di parisien lañ jox ndam li mais après nga def recours waa CNG jox la ndam nga jóge fa noppalu woo sax nga jël bébé Elton nga xamante ni moom ci combat la jóge moom tamit lu waral loolu. non bébé Elton kii suñ combat maag moom taxawul ren loolu am ay cinq jours rek la taxaw. ah kon danga nga ci combat bi ak làmb ji taxaw. waaw làmb ji taxaw. ma génn ci combat rek làmb taxaw ñi ko bëggoon bari na nag xëy na Fallou Ndiaye moom moo ko taxawal. mais am na ku ma fàtte nag sama benn booy il faut ma sant ko. Ngañ Thiam jaaykatu tiis yi la. Mm-hmm. après naa la boole moom. Ngañ Thiam sama booy bu baax boobu moom xam na man xam naa. Mm-hmm. mais kii nii man moom kii bu ma néewoon sax lu ma defee sax naa damay kii. ah lu tax muy ma nekk bëri kii bi kii ma bëree moom ban njariñ la ma amal. kii di kii bu non yow kii ma bëree moom yow xam nga ne yow wóor na la nii la kii. mënul mm-hmm. feesal salle bi ay supporter am. te yow gis nga man sama combat bi passé yow ñëw nga sama open press. kii bu jógee waa Géej yaa ñëw nga sama open press wala sama open press. ñëw naa ah ñëw naa. li may yóbbu ci mbooloo ma gis nga ko. bu baax sax waaw kii dafa am eh, kii lu fees salle bi da ko am. kii ma bëreeg ah, moom ah, kii ma bëreeg moom man maa koy dimbali rek. kii ma bëreeg moom man maa koy dimbali di bëreeg moom. mais Ouzin kii kenn xamu ko. Ouzin. Mm-hmm. kii waxam ju bari ji. na ma limal kan la fi daan man loolu rek laa question boobu rek waaw Kalso bu ma taxawee fii. yaa ngi déglu xam ma taxawee fii dangaa fot wala taxaw fii di wax ay ku ma daana ku ma damay ne di ñàkk sama bopp ki moom waaw waa léegi ma jox la exemple. yow dangaa war a wax koo daan parce que daanoo kenn xamal lan la. yow sa wax ju bëri sa làmmiñ bu rëy. non déglu ma sa làmmiñ bu sama premier sama premier combat sama premier combat arène maa ngi daan benn booy bu nekkoon écrit tëngëj ñu koy Rambo. nit day wax dëgg. manga. ah muy lim palmarès yaa ngi tooñ Rambo de. écrit euh, euh, tëngëj amul sax ku tudd Rambo. na man xam naa ñi fa ñi fa nekk ñëpp laa xam. parce que sama maam foofu la. bi ma jógee foofu noonu sama deuxième combat. Hmm. sama deuxième combat ku ñuy wax Grand Diaw. Mhm. grand jaw teel micro bi grand jaw bu njàmbur bu njàmbur euh, euh, njàmbur production. Mhm. doomu du jaw grand jaw xam nga ko. waaw grand jaw nit buy wax nit buy wax dëgg nit buy wax dëgg bu waxee rek di nga xam barki alxuraani karim grand jaw moo ma jëkk a tëggal deuxième Fallou Ndiaye moo ma dugal ci làmb grand jaw tëggal ma sama deuxième combat waxuñu waxe Fallou Ndiaye bi nga ko tëggee maa ngi ko bëree stade Iba jour boobu ñoom ñi seen grand frère ku ñuy wax kii euh, booy remarque mhm. moo fa bëree ak limousine combat boobu maa fa woon man dañ maa sélectionné woon te gisuma la. maa xëy na boobu boobu siiw ma comme ni ma siiwee boobu siiw ma comme ni ma siiwee. Hmm. ma bëree fa ak ku ñuy wax maas maas boo xam si mi ngi nekk écrit ñoom Coen euh, si ki mu war a bëree nu mu tudd. double moteur du double moteur ma daan kooku. xëy na yow danga xam moom moo tax. xam nga loolu man la du ma neef yow xam nga yow koo daan. waaw man maa daan man maa daan bébé lambaay. man man maa nii la ñàkk de. man ñaari ko la man dama mais dama feel ci euh, gis nga gis nga gis nga calcio non calcio waa déglu ma dañuy waxtaan waxtaan. un plus zéro égal ñaata. égal zéro. ah un plus zéro égal zéro. waa waa léegi déglu waa léegi déglu waa léegi déglul ma wax la. dañuy dégloonte mu neex. parce que waa léegi dañuy dégloonte mu neex. waaw fi mu doon waxagul naa la ñaari adversaire. waa léegi déglu waa yow nga ne ma. waa léegi déglul ma wax la déglul. déglu ku deful dara doo dégg dara. waa léegi dama bëgg nga déglu ma bu baax. waaw ñu ni seetaan. waaw xam nga dañ leen war a wax loo xam si buñ ko dégloo dina xam ni kii kat mooy lool ñun mbëri ay noble lan ay responsable lan. te euh, danoo war a diñ ci suñu bopp ñoo wax luñ gëmul. waruñoo wax loo xam si amaluñu sens. yow magum jëm nga. booy wax dëgg xam nga booy wax lu dul dëgg xam nga. ñun ñoo far ñun ñu neen la. man ñaari combat la noo déglu ma man. ñaar mais boo duggee boo duggee. YouTube yow boo fii ku fi bëree. boo bëree sama combat pour ki démb kay mi ngi nii. waxuma la bu ko neexee moom mu wane ko. Ousseyn sama combat pour ki démb maag parisien dama ni fii boo bëree woon ba Casamance. yow def Sénégal loo xam si nit mus koo def ci histoire Sénégal. nekkal ñu di bëri bëri waale ak loxo bu damm. yow boo amoon dara jotu la dara jotu la. dara jotu la dan laa daan nga bëgg a saltel victoire jàmbur dan laa daan naa andi na fi rajo yi de. andi naa rajo wala nu ma rajo yi dañ koo daan. barki alquraan karim ah, xamal lan la. aywa yow ñu ah, la yow ñu ba ba nga tàqaleeg sa sago. man la def li la def man la def. yow yow yow dafa mel doo jullit sax yow. non dégg nga moom yow micro bi yow dafa mel ne doo jullit xaa yow yow yow foo dëkk yow. waa léegi non non doomu aadama nit bul soxor. non dégg man soxoruma dama bëgg dama bëgg nga def sa bopp nit yow dama bëgg. loxo bu damm laa bëri waale. yow yow dégg naa dégg yow naka ngay amee combat di contact benn yoon. waaw dama la contact barki Seydina Mohamed benn yoon la contact. dama dara jotu ko. man ma eh yow man parcelle. mbëri parcelle yëpp alquraani karim billaahi man maa ëpp ay dama fay baadu moom ci la bokk kan baadu moom supporter la bokk yow yow yow yow yow lan laay soxal la yow lan non non man lenn laa bëgg dama bëgg nga def sa bopp nit yow. combat def 3 jours. sama combat bi mu desee 3 jours bi. sama combat bi mu desee 3 jours barki alxuraani karim la Assane Ndiaye ñëw ànd ak pël bi ñëwee ñu xool ma ñu ma calcio ndax mën ngaa bëre yaa ngi déglu ma expliqué man leen mën naa bëre. yow bu la dara jotoon doo bëre man xam naa loolu. waay booy yow bëggal jàmm waay. day tappale yow mais làmb wax ju baree ko ci dugal. mais kii bu arbitre soufflé barki Serigne Touba mu dem defi li mu doon defi man maa la ko wax. man maa yow ak moom barki Seydina Mohamed bu arbitre soufflé li mu doon defi. li mu bàyyi fee xaw ma dëkk bu mu nekkoon lu mu bàyyi foofu. waaw lu mu bàyyi foofu. lu mu doon liggéey foofu xaw ma gardien la doon liggéey foofu xaw ma lu mu doon liggéey. ci lay delluwaat. mais moom neen day sang néew. waaw kooku moom la concerné. liggéey kii ku nekk ak liggéeyam. yow yow kii kii Ousseyn kii de Ousseyn kii xam ma bu nekkee fii di wax waa ji nga xam ne dafa mel na R4 bu pant barki alxuraani karim bu mën a jàppee nga xam ne yàlla déglu ma ñun xasewul waaw ku xase. non non da nga ni ma damay dem dellu fa mu bu ma la jàppee nga xam ne yow yàlla. juge sa daan la yow gis ma sama loxo yu dagg yi nii. yow yaa tax may def lu benn man ñeew ma la ci dara. yow bu dee fit maa la ko ëpp maa la ëpp doole maa la dàq bëre yow nii nga mel ni. karkaas nga. non dégg nga yow mi ngi mel ni. kay lu lu fa teg kay ñu reyante bu la neexee nga ñëw ñu dugg fii ñu reyante léegi. yow yow ku la gis xam ne sax li ngay wax gëmoo. yow tàppen nga waa léegi déglu ma ma déglu ma ma. yow xamoo ma sax kii waaw dañuy waxtaan wax. parce que bu bu demee bu demee bu demee ba naan su demee ba naan sa combat benn yoon nga contact. barke alxuraan benn fan la fi kii bu taxawee fii magum jëm naan ay 2012 yow da ngay yab nit ñi yow mën ngaa wax ni Macky Sall bi muy falu nga nekk nga kii gis nga bu ngeen bàyyi seen dof dof la gi li daloon Marc Vivian Foy dañ la dal da nga bëre ba mu jaay wala mu jaay sa yow xaw ma xaw ma man maa la gën a baax yaram maa la gën a nekk xale fuuf maa la gën a wóor no déglu ma dama dama bëgg nga déglu ma nii nga mel nii yow nii nga mel nii mais moom benn ñaar da la sumeeku loolu ma jaaxal déglu ma dama dama moom nii mu mel nii su meekul ñu xool yaram ni ma mel bokkul. saanaare naa su meekul ñu xool yaram ba moo gën na su meeku. yow yaa ngi ko laajte barki balaa sa nooyi di fat déggoo li ma la suuf sama ndey maa ngi mën fuuf. nooyil balaa sa nooyi Alaaji Fall la jàppee billaay walaay wa taala da nga yow doo jàpp kenn yow tàppet nga yaa gën a ragal yaa gën a ragal sinuwaa yaa ko gën a ragal yow ngay tapet yaa ngi lox instant yi. lii lii barke alxuraan lii boo ko xamee boo soxorulee nga xam naa yow maa la bu doole yow. kii di lox barke Rasulullah maa la bu doole yow boo xoolee yii nii bu waxee dëggam. parce oh, kii gis naa ko sànq bi mu ñëwee nii moom sànq bi mu ñëwee xam nu def. ma gis ko mu may xoolaat. ma gis ko ma yow da nga xam ne sa couleur yi moo bëri moo tax ma lay xool sa couleur yi moo bëri. quatre vingt cinq couleur nga fi tegle quatre vingt cinq yow lii waroon nga soog nga xam ne boo ko tegee ci géej gi mu yóbbu la laaj waxuma la moytu booy waa di nga li ma sañse dafa waaw mais man ter gaa nga sol barki juste laa du tes neer sa ter waaye doo avancé man tes neer yow sa ter gaal bi nga xam ne tey bu lakk amoon fi mu doon ñëppay faatu Ouzin xanaa kii waaw tool tool doon loolu doxul jàmm de mais li ngay contracté nii. Ah, nooy ah, da ngay fatt de. boo fattee da ngay dee. sumeeku boo waxuma lool dama ne dama ne déggoo li ma déggoo li ma la. animateur la animateur la. Ah, waaw sumeeku. sumeekul man sumeeku ma. sumeeku sumeekul man sumeeku ma. da ngay sum da nga da nga nooyi bala ngay fatt. bul àcc sa nooy bi da ngay fàtt léegi nga dee. waaw ah, yow tamit dinañ. waaw toogal toogal Kalso toogal. yow boo yow boo xamoon doole di nga di nga parisien dina la def ni mu la def. boo xamoon doole yow yow sa xel bu bënn. dañuy déglu kii kii am bëgg xam li ma bëgg a xam li ma bëgg a xam dina am lu ko bett. li ma bëgg a xam mooy. nga seetaan Kalso nga seetaan Kalso baadu duma yi ñu ko duma. moo tax nga bëgg a jël avance am. man kii dama ko dàq bëre fuuf dama ko dàq xeex barki Seydina Mohamed gën koo capable duggal YouTube nga tàppe sama komba sama premier komba maag Bébé Lambaye dama ko duuma bu mu génne stade mu ñëwaat ma jàpp ko ja ko ba muy bëgg a dee jàpp ko mu may dóor tànk ma wéer ko mu jaaxaan ma yéeg ci kaw tribune deuxième combat ki ma doon bëreel taxawul làmb ñaar a koy def yaa may dégg waaw non dañuy dégloonte dañuy dégloonte mu neex xam nga euh, ki may ki ma doon bëreel ñàkk de songukat la mhm. xam nga ma arbitre souffle ma dox ci kawam dóor ko góos mu ñëw di ma rappel ma koor ko dóor ko épercule mu génn bi mu génnee léegi su ma tàllee sama su ma doxee wut si ko mu dem fële di daw man kuy daw ci làmb du ma la dàq boo taxawee ñu jëflante du yàgg kii li mu koy xamal bariwul làmb du wax ju bari yaa may dégg non noon déglu ma déglu ma mu wax la. làmb ak ak ak yenn wax yi quoi ñun ay ay responsable la mbër ñun ay porteur de voix la xam nga danoo war a wax loo xam si day jariñ askan wi wax loo xam ne si ku ko dégg dina la nawloo. léegi li ma bëgg a dégg li ma bëgg a dégg li ma bëgg a dégg mooy moom dafa ñu teewul. voilà ok Ouzin fii ay wax yooyu andi fi ay wax ay lewetal ak yooyu indi bu doon loolu man ma toog sama kër. lewetal man man sama diggante maa yow soxlawuma ci lewetal yow da munul dara yow yaa munul dara yow sa yaram bi moo décoté wul sa yaram bi moo décoté wul. sa yaram bi doon nii. ah yow en tout cas wax def soo munoon dara. tey moom tane sax kii su munoon dara. billaay walaay wa taalaay kii kii kii moom ñoom booy remarque ñoo bëree ndoo. remarquement man su ko xam moom ko expliqué bu jigéen naan ay 2012. yow yow billaay li dal fooyee dan la dal. man xam nga doomu aadama xam nga nit da ngay wax dëgg. 2019 laa bëre sama premier combat boo nee 2012 nga juddu. 2019 yaa ngi rey sa bopp. gis nga crise cardiaque ngay am fii léegi waaw du ma la déglu waaye nga ma déglu du ma déglu la. yow bu ñu demoon ci médecin ñu xool. yow lu ma la dégloo sa yaram bi feebar kese la. yow yaa ëpp ñëpp feebar. ñi nga toog man sama jabar di may faj di may barki Seydina Mohamed waa léegi déglu man sama jawar di jël man sama heure bu sama jawar ñëwee fi damay mel na man sama jawar heure bu ñëwee fi damay dégg heure boo xam ne ni jóge na bitim réew bu ñëwee fi nii damay mel na comme oto boo xam si lu ñu tóolee waat ngay beesaat waaw damay beesaat tax ay prévision la may indil ay garab yoo xam si bitim réew la koy jëlee yooyu boo néewlee nit ku wér bu ñu la ko cuuj da ngay faatu yooyu tey yow mi bu ñu la ko woon cuuj ñu xam ne nit ku feebar ñëw na muy yow yow maa ngi yow tey bu ñu tey bu ñu demoon carbone carbone 14 bi nekk fii nii ifan carbone 14 ku ne Sénégal xam na ko fi ñu xoolee yax yi bu ñu fa demoon bu ñu fa eggee wóor na laay xam ne yow néew bi dox nga. pare nga. pare wu ma de. waaw ah, léegi waxat pare wu ma waxat. yow munoo maa pare loo. yow munoo maa pare loo. mais mu tekki veeram yi. dégg naa benn bët bi du gis. nee ko mu tekki veeram benn bët bi du gis benn bët bi côté bi du gis. bii du gis. ana. na tax bët bi dem naa ni <laughs> dem naa na ma na ko ñaar ma tàllal ma tàllal. la la cinq baaraam moo taal man ma taal ak ñaar ma waaye ci moom kii ka ma jeexantal la alxuraan karim fekk sama yow li man ma waxee takk yow maa ngi takk lii Las Vegas laa ko jëlewul weeri na ko ko bu fekkee bu mi ngi gis teel dinañ xam daal teel benn <laughs> lii mu laal la. waa léegi pare nga pare nga gis nga àdduna. Mm-hmm. man nit ku ne da nga am vision. Mm-hmm. man dama am vision. Mm-hmm. li Balla Gaye 2 def di ko nuyu à passage di ko si euh, jaale papaam. waa di ko si sigil ndigaal bu baax Balla Gaye xam nga sunu grand la daf ñuy jàppale. nit ku baax moo nekk sunu tête de moom nga waroon a nag dinu jàppale. da ngaa jum quoi. d'accord. yaa may dégg. Mhm. ba ngay wax dagguma la dama la bàyyi ba nga pare. waaw kon yaa may dégg ñu ngi koy mhm. jaale di ko jaale Sa di ko jaale Balla Gaye 2 ak képp kuy njabooti Double Less ak ñu ngi la koy jaale. Mhm. di ko jaale àdduna bi yëpp. di ko ñaanal fi mu tëdd yàlla na ko gënal fii ci kàttanu yàlla. incha allah xamali ma la ñun ay porteurs de voix lañ dafa am fu ñu teg suñu bët. làmb man bari wax dugaluma ci. man laa man. waaw waaw. waaw dama ngay laa déglu nag may déglu. man dama dama ñaan yàlla bis euh, euh, xama man nekk <coughs> làmb roi des arènes loolu laay rêvé sama làmb xamali ma la. roi des arènes. roi Seydina Mohamed. billaahi wallaahi taala loolu la ñaata nit ñu la dàq bëri ñoo fa ne. yàlla yàlla moo yor ay mbiram di ko séddale. Mhm. nit roi de la banlieue sa doog a ne. waa léegi Tidiane Faye eh. moo ko dàq bëri ci waa dañuy dégloon te mu ne roi de yëpp banlieue yëpp la xaw ma mm. suñu dëkk ñoom roi de la banlieue yëpp sax doo ko nekk waa bi ngay wax dama laa dégg man nga waa léegi déglu moom waaw waxal nga Tidiane Faye Tidiane Faye kan moo ko dàq bëri ci lam bawul Issa Pouye kan moo ko dàq bëri ci lamb. foofu nga foofu nga. waa léegi da nga may foofu a teg a teg misaal demal. bu làmb doxoon ba dox ñoom ñaar au sommet la ñu nekk. yow yàlla yàlla mooy séddale ay mbiram mooy xool ko neex mu def ko la ko neex. Mhm. Siteu bi muy départ kenn yaakaar woon dina yegg si fi. Mhm. ak gëm boppam moo ko yegg si fii mais tey man damaa gëm sama bopp gëm ni làmb bu ma am. dama koy gagné te incha allah ci kàttanu yàlla dinaa yegg fa ma jëm man loolu laa gëm diggante yow ak kii est-ce que xeex bi ñu ci bi ci gars yi di yaakaar ak ni coolu ba kii man lenn laa lay wax barki Seydina Mohamed billahi wala bu arbitre soufflé du ma ko reculer une pas bu dawul dama koy dóor mu daan bu taxawee dama koy paqueté moom mi ngi nii tànk baaxul dañ ko ay feer lañ ko def lii ay feer lan ko solal fii. yow te nga taxaw jub yi baaxul. yow kii day kii da moom mi yow kii kii moom. mais mais mais Kalso. ah Kalso sa dafa xam ne amoo garde. Hmm. nee na boo taxee nga daal. bu fekkee dafa taxaw bu jël ma paquet. yow xanaa yow aussi bu fekkee moom fi tey dana am loo xam si ko nax moom mooy li koy nax moom mooy li amoon ca combat da koy nax ci combat bi di ñëw. parce que day yàgg ni kii mënul dóor te fekk ndeysaan kii mën naa dóor fekk kii ndeysaan li ko doon mooy dafa yura yow xam boo wax sa dëgg boo fekkee yow yow doomu jullit nga war ngaa xam ne sama baaram bi daa amoon problème lii war ngaa xam daa amoon problème mais barke alxuraani karim billaahi wallaahi wa taala gis nga sama dagg-dagg yi xam nga lu ma ko def nii lii box loolu moom te pourtant lii xam dagg-dagg yi <laughs> dama koy ay waay yàlla bugguma barki alxuraan karim bi yëpp box moom ko jox box fan yii. parce que xamoo ni ngay dóoree moo tax. mi ngi nii xamoo ni ngay dóoree moo tax. waaye yow man may rey sama bopp nga naan ma damaa xam ni moo tax ma def lii moom mi il faut ma duma ko ba mu faatu. man ko arène benn combat moom moo ci dese te wóor na Rasulullah da nga moom dama ci def crime te ci yow lay doon. muy yow. bis booy ñëw esaat booy boo bor boo amee nit ci seen koñ. Hmm. nga teel koo joxe. yow yow dinaa sa yow alxuraan kari billaahi walaahi taalaay bu boobaa bu Fallou Ndiaye nga teg sa reliquat ma teg ma yow mbóot xeex maa yow mbóot laa mbóot fekkee da ngaa yaakaar ni yow mënu maa xeex yow billaay walaay wa taala ma la jàppee da mel nan kii du ma bëre moom dama koy xeex damay xeex moom dóor ko mu daanu far fos loolu far xoola barke alxuraan su may ñëw ci làmb ji kaamil laa ndaal far fos dama koy dóor mu daanu wala ma daanu mais xanaa loolu dañ la ko dee non du question dañ la kii du dara doomu jullit nga kii moo gën a nooy xaal kii du dara barki sëñ tubaa kii du dara kii ni mu mel ni du dara yow yaay xool ci caméra man caméra bee laa xool sa nekkul ci caméra tontul ci li ma lay wax ngay tiit nii di xulleeku. non man du loolu de dafa am sama benn. am sama benn bagage bu ne ca saak bee boo xam si dama la ko war a joxoñ moom laay laaj kii nii que pour mu jox ma ko. déggoo li la. yow jox ko saag bi yow jox ko saag bi yow saag bi tamit. bu tee dama lay daan moom da xam ne yow bu fekkee yow doomu julli nga taxaw naan ay da nga nga taxaw fi naan. dama lay daan far force loolu yàllaa ko def ba pare. ngay ibbeegu di wax. yow li nga yaakaar ay gàllaaj nga yaakaar man foo gàllaaj lii lii lii daanu ma. Hmm. yow xamoo sax kii dafa xamul sax barki Seydina ma kii dafa xamul yow wóor na Rasulullah bi lii du wax lan la barki yaxul lan la Birahim Mbacke yaxul lan la yow sama dinaa tax fi di ko naan ko lii yaxul lan la kii yaxu mbaam mu kii sama mbaam mi ma jëloon ci mbapat mi mooy mbaam mi ma jëloon ci mbapat mi mën na yow barki maam Cerno Birahim xool sama mbaam mi ma jëloon ci mbapat mi yaa ngi dégg mu faatoo mbaam mi bi faatoo ba nga xam ni dem na ba faatoo ba yaxi des yax woo laa jël nii yax googa moo nekk yow da ngaa for yaxu jàmbur xaw ma xaw ma foo jëlee yax moo nekk nii xaw ma foo jëlee yax problème bi problème bi du ay yax non mais lii mën naa joxoñ nii. non non yow moom xaw a jaaxal. kii déggoo li ma a wax bu fekkee dafa bëgg a. bu neexee moom bu ko neexee bu ko neexee. lii boo gisee du taaxale ko moom kii keroog boo gisee stade indi naa ko kii ci sama gàllaa la bokk mbaam mi nga xam ne moom laa jëloon ci mbapat ba mu faatoo mbaam moom noonu yaa ngi dégg lu may suge ba mu demee ba nga xam ne lépp ji yàlla yàq kooku moom laa jëndi. waxe dof waxe dof bu fekkee waxe dof la bu fekkee yow combat <laughs> parce que yow man combat bi am naa yow loo ci yaakaar ay dem ci ay mobile pour affaire ay galaaj ak. mobile la mobile la man damaa gëm sama bopp damaa reyante. damaa dama man damaa reyante mbër bu mag boo gis may àndal dama ni. waa déglu ma waa déglu ma dama. mais man mais man mbër yu mbër yu ñoo ma bëggal seen bopp seen téléphone dama woo ku ma invité damay ñëw képp koo xam si. dégg naa téléphone ma damay ñëw. parce que bëgg koo gis yëg koy fay lii du dara bu la neexee gàllaaj yi ngay indi bu la neexee nga xëpp ma ko yow looloo gën a dee te dama lay daan farfoos ngay wax ni naan kii waxuma lool dama bëgg Ouzin mhm. mu xam ni moom mii bul teg lii bul taqal lii ci taabal ji jël ko teg ko fee lii baaxul lii daa baax lii bu baaxoon sax dama koy lii baaxul kii liñ ko xamal lan lañ ko war a wax mu def boppam nit làmb lamb yëf yi kon ñun yow yow yow man bu ma dofee yow nga parce que yow ay non xamal la moo tax yow ñëpp la xam da ngaa dof yow fan yële passé benn tubaab laa bëggoon di seetaan ak moom affaire bi ci ci ci ci kii euh, ci internet bi waaye ji xamul ni sax xam naa la mun naa ma waa ji kii kii ab lan la. mu may wax ne ma ndax kii dafa dof man ko non kii doful day dof doful mais doful. mais bi mu la gisee ngay dox di yaa ngi tànk yi noonu. mais man sant naa yàlla ginnaaw tubaab mi ngi xool sama image. man sant naa yàlla yow loolu amoo ko parce que defoo fi dara. man sama image bu man sama image wër àdduna ah. yow man sama image dem ba Afghanistan sa ban image sama image dem na ba Afghanistan damay nekk fii bi sama combat man fépp laa nekk sama combat moom mais man maa mas a def ci Sénégal benn émission boo xam si keroog bi ma ko defee ci deux jours mu def cent soixante cinq mille six cent vingt deux vies yow boo defee émission yow ay trois vies ngay am ak quatre vies dugal YouTube dugal YouTube interview yi ma def man yow amoo yow amoo teggin amoo yar. man dama laa mës a dem loo xam si di dem combat yow génn sa buntu kër yow sa yaay di lay sotti ndox ngay daggal ay saaga. nit ku baax dina def loolu yow yaa gën a woyee di yow. jërëjëf boo woyoon jour boobu doo def loolu. sa combat match nii. xabtal yi la. xabtal yi la <laughs> kii ki yëmul xam yow amoo ay sëriñ yu baax sa sëriñ nga am yëpp ay sëriñ yoo xam ci ay fas ay moccikatu bañ lañ fas <laughs> mooy ñi ñiy takk sëy sëriñ yu takkatu sëy la am ngir am gàlla kii xam lu mu def wóor na rasulullah xam ay yóbbu ay soow ak mais mais mais man sax génn say waajur di leen ñaan. waaw danañ danañ dégluwoon de. Kalso Kalso li ma bëgg a xam naka ngay waajee combat bi wàllum entraînement. voilà. dee ko wax muy entraîné parce que parce que nit boo jëlee avance jàmbur da ngaa war a entraîné. barki non respecté entraînement même bu dul même bu dul bëggoo même même bu dul même même waa déggee déglu. même bu dul même bu dul dama ni nga nooy. bala ngay fàtt dama ni. Ousseyn waa léegi déglu ma. c'est que barki Seydina Mohamed kii bu ñu jàppante maak moom billaay walaay wa taalaay dana mel ne ku dugg carapit sàmbalaw ba bi dana bëgg a waaj du waaj fu ko neex. du waaj fu ko neex. kii moo ko jàppee dana mel na kaña gu dëgg tiga dege mas ngaa fekk kaña fu mu dëgg tiga dege dana mel na kaña gu dëgg tiga dege maa ngi yow bokkuñu yow boo xoolee lii nga xam ne maa ngi liggéey bu fekkee li mu woote dëggal ci moom na sumee ñu xool yaram bi man xuux daaxuma xuux daaxuma loolu tàppet nga ko xuux dama ne man xuux xam nga ni biceps yii ak lii nii bokkul doole doxul jàmm yow lii sama yaram bi li ma ci def yow doo ko ci def que amoo xaalis boo ko ci def. jërëjëf waaw. barki sëñ pare nga waaw pare nga toogal. respecter sa bopp ay non respecter la te te te affaire yi nga <laughs> <laughs> <laughs> missile barrière ah. non comme bu ñu s'orienté missile de la distanciation. <laughs> di kii. wàllu yow fan nga ci ak naka ngay waajee. waaw man maay sant yàlla bu baax maay waaj ànd ak say samay mbokk. Mhm. parce que man waa Géejawaay dañ maa yaakaar. Mhm. su ma jugee waa géej Géejawaay ñëpp. topp sama ginnaaw jàppale ma géejuwaay bëri na ay mbër mais macha allah heure su ma jugee. ñu mhm. topp sama ginnaaw loolu sant yàlla la maa fa mujjee bëri. Mhm. mais heure bu ma jugee ñu topp sama ginnaaw loolu sant yàlla di sant sama supporters yëpp di leen wax ñu xaar. waaw yaa may dégg. komba mhm. bi maa maa ngi xëy matinalu di entraîner. combat bugguma ci sax graisse bu bëri déedéet. bugguma ci sax kii. jël bëlim déedéet. nii ma toll nii nii ma toll ci laa xooy duma waa waa waa da nga wax ma déglu la da nga may déglu ba ma pare. bëgg mu yokk poam rek damay mu ñëw ñu naan dafa dafa feebaroo dafa ŋas ak dafa ngos ngosee rek ay dafa. waaw may ma ma yeggale may ma ma yeggale. ay dafa njàmb waaw ma may ma yeggale. yaa may dégg loolu feebaru jigéen la. man jàmbataan du feebaru jigéen waa léegi dégg waa léegi déglu ma wax. feebaru jigéen yaa may dégg maa ngi sant si sa téléphone bu baax. fayal na ma saal musculation moom may sa sant yàlla boutique fayal nañ ma salle musculation ndongo Colobane maa ngi koy siyaar parce que daf may jàppale ci bépp côté. yaa may dégg maa ngi sant képp koy jàppale Alé Thiam maa ngi koy siyaar bu wér daf may jàppale. xam nga di sant waa Géejawaay ñëpp di sant Ahmed Aïdara barki Seydina Mohamed sama combat bi passé daf maa jàppale di ko wax yàlla na ko yàlla jox meer Géejawaay bi parce que moom mi ngi jàppale ñëpp jeunes yëpp mi ngi leen di jàppale. waaw di sant saan nag. moom moo ma booleeg Ahmed Aïdara di ñaan di ñaan yàlla. waaw maire Guédiawaye bi yàlla ko Lat Diop jël. maire Guédiawaye ba. Lat Diop Ahmed Aïdara moo koy jël far loolu yàlla def na ko ba pare. Lat Diop man xaw ma la xamoo moom mais dama ñaan yow da ngay dóor maa jugal fii kenn xamul. parce que samay rakk lay ñoom Gora Mbaxali mi àndal ak ñoom Pape Salim mi àndal maa ngi ñaan yàlla Ahmed Aïdara day ñëw ba suñu kër nga jël maire maire bi. yaa may waaw dañuy dégloonte xaw ma la xamoo moom. après da ngay wax après da ngay wax. maanaam ay Ahmed Aïdara. Ahmed Aïdara am na ko jël. Ahmed Aïdara borom mouvement géejuwaay laa bokk. yàlla na ko yàlla jox mairie géejuwaay xamal la moo tax. barke Seydina Mohamed. xoolul mbër mu ndaw xoolul mbër mu mag ku ci am problème dalay jàppale te yàlla rek tax. billaahi wallaahi taalaay tànkam luwul kenn di sant gedda moo yor mouvement am bi xam nga di sant alsaan daf may jàppale xam nga ñoom ñëpp dañ may jàppale xama di di ñaanal uh, Ahmed dara yal na ko yàlla teg uh, ci miir bi di sant ñu may jàppale ñeex maase joor mënu ma koo fàtte daf may jàppale barki Seydina Muhammad di ko wax mu waaj Kalso loo waaj dayul barki alxuraan billaahi wala waa géej waay ñoo ma yónni yaa xamte ma barke alxuraanu karim te fii ak semaine bii di ñëw di nga dégg combat bu rëy incha allah taxaw na. ñaari avance laa war a lekk kii bu taxawee fii a jël yoo xam ne bëree yow. Boy Jules moom bàyyi ko loolu eh, soit. kan moo la wax Boy Jules laay bëreel yow. ah yaa ko wax fii léegi. waaw yaa da ngaa jël. en tout cas daal en tout cas li wér te wóor. waxal suñu combat maa ngi yow. waaw mais moom moo fi wax sànq mu ne. waaw waxal suñu combat maa ngi yow. moom yow maa ngi yow fi nga wàññi poids boo da ngay songe yaa moom sa yaa moom moom wala man maa la moom. damaa bañ dëgg lu ma sugee xanaa. ku nekk yaa xam ni ngay toog damay bañ na daal damay bañ kii ci gàttal bu arbitre bu bu bu sumee ko bu ñëwee ci làmb bu sumee ko ma sumee ko du ma ëpp man maa la ko wax. te benn te benn dinaa muscler dina am dool te fu ma ko ñaas moo abal ma victoire. moom mii fu ma ko ñaas laax moo abal ma victoire looloo gën a dee. kii Fall gis kii tapel la du xeex. kii damay bañ moom mu naan day jéem a wàññi poids bu ñëwee bu wàññee poids bu ma ko jàppee ñu ne ah cim xamoon nañ ko kii moo ko man loolu laay bañ mu daal yow ba nga xam ni parisien bi muy bëreeg yow man maa xoob sax te lalaa duma ba ngay raam yow rusoo sax sa naw lay de la seetaan ngay raam karim barki Seydina Mohamed billaay walaay wa taala yow billaay da nga am loolu bett ci man Fallou Ndiaye da nga am damaa fay xaalis bëri pour ma bëree kii waaye xama ni kii barki Serigne Touba matuma sax galan nit ko am deux victoires nooy bëri moom matuma sax galan un nil un nil un point un nul euh, victoire waaw léegi maa la ko tane parce que yow amoo victoire. ma waxuma nee naa la man ci sept victoire benn défaite la waxal dëgg nit day wax dëgg. yow ñëpp yow yow yow yow yow yow. man maa ngi ñaan maa ngi ñaanal maa ngi ñaanal kii nu mu Lat Diop Lat Diop Ahmed Aïdara maa ngi koy ñaanal mu jël mu jël mairie Guédiawaye Ahmed Aïdara sama xarit sama doomu ndey ay dara maa lay ñaanal nga jël mairie Guédiawaye sama benn rek xam ne tamit ñu ngi koy wax Ahmed Ndiaye adjoint maire Gol Cissé téléphone maa lay siyaar bu wér di la bégee mais bu ma jugee foofu man maa leen di sant Diané Cissé bàyyi ma kenn di sant bu baax a Paya maa lay sant Abdou di sant waa Gambie waa Gambie dama mm. leen di sant sant waa Afghanistan mm. sant ñëpp bàyyi ma parcelle bàyyi ma kenn di sant sama booy ma nii wax ni ngañ càmm borom tiis yi après naa la boole ak moom. maa ngi sant duubul sama xarit duubul moteur Marley Junior maa ngi koy sant. sama sama xarit sox na ko gaa yi jël sama xarit sama doom day sox na ko gaa yi jël. yaa ngi déglu dafa war a bëre te gars yi moytu daw bi ñuy daw parce que dafa war a am combat dafa war a bëree loolu moom mooy yoon. sama benn gaayantin boo xam si ñoo bokkoon écrit vidéo te dëkk Tëngéej maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla jox mu am ndam. papa Balla Gaye mi fi jugee nag maa ngi koy ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gën fi jugee. amiin waaw ah, que dañoo jum bi nuyoo mais foofu la ñu waroon a jëkke quoi. ak ñoom Père mbay Guèye ñem fa fekk ak ñëpp. di wax Balla Gaye nag yàlla mu jox ko xol muñ parce que grand bu baax. Père Balla yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko ñëpp nit ñu baax lañ Sénégal daal képp koo xam si ku fi bàyyi ko na la yàlla yóbbu. àjjana firdawsi yal na la yàlla yóbbu àjjana firdawsi di ñaanal tamit sa sa mbokk itinéraire ñi lay seetaan waaw sa mbokk inter sa mbokk internet <coughs> internautes yi ñi nga xam ñoo lay seetaan di seetaan waa wasaare di leen di ñaanal ñoom ñëpp gudd fan wér gërëm ba lépp loo xam si ñi ngi koy mébét ak kum ci mën a doon muy góor muy jigéen koo xam si ñi ngi seetaan wasaare làmb <coughs> parce que ñoom amuñu seen fay ñoom ñi seetaan amuñu seen fay képp koo xam si am nga ci mébét yàlla na ko yàlla sottil képp ko xam ne amu ci jafe-jafe yal na la ko yàlla dindil képp ku ci bëgg nag loo bëgg rek yal na la ko yàlla defal. ose ma jugee foofu maa ngi sant. Macky Sall parce que ñun ay porte de voix la. Mhm. Macky Sall njiitu réew mi moom laay waxal. Mhm. Macky Sall man bébé Elton nee nga man maay sa mbër. maa lay Macky Sall moo wax loolu. moom moo wax loolu man maay mbërëm. Macky Sall moom moo wax loolu. waxuma loolu Macky Sall. ma ma Macky ma waa déglu waa déglu. déglu na ma déglu ma may ma li may wax dafa am sens. waa bu ma dégg bu ma dégg li may wax dafa am sens. gis nga ñett fanu bàmmeel. Macky Sall man li may wax dafa am sens waaw déglu ma déglu ma li may wax dafa am sens. Macky Sall maay wax réew mi metti na dëkk bi metti na ñun ay porteurs de voix lan parce que fi ñu nekk ñun géejuwaay gi ñu nekk ñun dañoo yaakaar. te bu nu waxee ñu bari dañoo déglu dañuy déglu yaa may déglu bu baax am na mbooloo mu topp suñ ginnaaw Macky Sall wàññil ceeb bi wàññil diwlin ji wàññil dund bi location cher na wàññil lépp parce que dëkk bi dafa metti mm-hmm. waaw wax dëgg yàlla askan wee ma yónni waa géejawaay ñoo ma yónni Macky Sall Macky Sall ngir yàlla ak yonent bi moom Macky Sall moo ni ma man maay mbërëm man bébé Elton moo ni man maay mbërëm ah, non du ah, jooy parce que moom xam na man ah, xam naa moom xam na man xam eh, naa président de la république wàññil dund bi lenn nag dama koy wax Ouz gis nga làmb danoo war a bàyyi làmb ji ubbi làmb ji tamit parce que ñun danoo yaakaar euh, suñuy wayjur ñun lan yaakaar man sama wayjur ci làmb laa ko bëgg a teralee waa déglul déglul damay boo paree di nga si yaa may dégg man xoolal li ma làmb naroon a yàqal man dama takkoon sama bopp xala yaa ngi may dégg takk sama bopp xala ndax làmb ndax bëgg kii ci laa bëri sama premier combat daan bëri sama deuxième combat semaine bee passé laa dem Casamance dindi ko yaa may dégg barki démb lan moo tax nga sa bopp non parce que parce que xam nekk euh, booy dugg ci làmb dégg gars yi naan faaw nga téye sa bopp xam nga moo tax ma dem takk sama bopp xala te man suñu waa waa àdduna gars yi dañ maa yaakaar yaa may dégg bu léegi ma dem semaine bee paase dindi ko semaine bële paase laa nga dindi ko waaw non dama ko dindi parce que bëri naa ba pare mais dama dama faa jóge damaa demaat Casamance non déglu bul yàq bul yàq waa bu may bu ma dem damaa demaat Casamance waa déglu ma ma yeggale damaa demaat Casamance bërki démb damaa de bërki démb dama demaat bërki waa bërki waa déglu ma waa de waa de bëri xam ne kii lan mooy xalaat bëri ki démb bëri ki bëri ki démb laa kon moom fi mu doon dafa bëgg a wax léegi waa léegi dama leen laaj waa léegi déglu ma waa doo ma déglu ba ma yeggale ba pare après ni sa problème bi waa léegi déglu. kon da nga am waa waa déglu ah, moom ma yeggale ba ko. non non moom bërki démb bërki démb bërki démb laa dem sa bopp ay problème yu bërki démb laa dem Casamance bërki non non li mu wax bërki démb laa dem Casamance dindi ko ma ma xëy tey suba woo sama paa bi nekk foofu ñun ma paa bi wàcc na xoolal li ma làmb naroon a yàqal. Uh-huh. te ci làmb laa yaakaar man yaa dégg. waa léegi autorité non déglu ma waa danga may dégg. waa danga may dégg il faut waa danga may déglu ah, il faut nga déglu ma. waa waa Ouzin. déglu ko paa bi dindi na ko ba pare dindi ko. dindi na ko paa bi dindi na waa waa waa léegi yow bi mi ngi dox wala cardan bi dox. waa léegi léegi yow cardan bi mi ngi dox. waaw mi ngi nice. waa léegi déglu ma Ouzin. ci làmb lan yaakaar. xoolal li ma làmb naroon a yàqal. maa ngi waroon tuddee Cissé téléphone maa ngi ko waroon tuddee doom. Kéba Kanté maa ngi ko waroon tuddee doom ah, te incha allah dinaa ko tuddee doom non déglu ma ma wax la déglu ma ma parce que xamal la moo tax. wa wuy ma wuy ma fii ma wax la lu am sens laay wax nii. parce que parce que parce que ñooñu dañ may jàppale di ma dooleel. Mhm. dama am yéene ci ñoom. Kéba Kanté barki Serigne Touba. ak Maysa sant yàlla boutique Kéba Kanté Maysa sant yàlla boutique ñeex maase joor ak ak ñeex maase joor damaa am yéene tuddee leen doom ñoom ñëpp da nga leen bëgg a tuddee doom incha allah dina ak Ahmed Aydara Ahmed Aydara dinaa ko tuddee doom man mu nekk ñaata ma cinq cinq te incha allah Ahmed Aydara dinaa la tuddee doom man bébé Elton man maa wax loolu mais ngir yàlla ak yonent bi président de la république ubbil lamb ji nga gesuwaat lamb nga gesuwaat waa lamb desul waa làmb gars yi sonn nan ñun jeunes yi sonn nan parce que yaakaaruñ lenn lu làmb te man sama ah. waajur man dama koo ñaan yàlla pour teral ko ci làmb président président président ñu ngi lay ñaan nga xama xama président ñu ngi lay ñaan nga wàññi lépp lépp luy dund nga wàññi ko ngir yàlla nga bàyyi làmb ji nga bàyyi lamb message bi jàll na Kalso. kàddu yu mujj yi waaw bu ma jugee foofu noonu. lii kay bi yéen yéen a ma ko tàmbaloon. parce que boo dee xool parce que wasaare la lamb bokk naa ci ñi jëkk a def émission parce que seen deuxième émission ci lamb ci man la. boobu bàyyi Basiru Mële ñëwoon na sama kër mu nekk nit ku baax moom sëñ Basiru Mële yaa ngi déglu mes bi kay bi moom tàmm nañ ko fi mu toll nii nag dama koy jege ci yow. Mhm. yow mi nga xam ni. waaw Ouzin tamit sama doom yaay la. yow yaa jaral maa maa ngi sant Ouzin bu baax. parce que sama nit ku baax la di sant sama doomu ndey bas maa ngi koy sant di sant jiili wasaare waaw waaw non bas sama doomu yaay la parce que ñëw na ba suñ kër kenn du moom mais temps yi esar la de daa yar karaw gi temps damaa ragal isa amul ci xale mari si cey doom day yaa wóor mais lan la kenn du yow yaa mën ñëpp pël bu rafet nee naa la pël moom moo fekkoon ma nekk ndéef mu def ma. pël pël moo moo ko sol sol da koo sol. pël mais kii du mbër. pël maa ngi koy sant bu baax a baax. kii du mbër kii ma la jàppee naa la duma naa la daan suñu grand euh, Lat Diop. di sant sama rakk ji Ameth Lat Diop maa ngi koy sa maa ngi koy siyaar Ameth Ndiaye maire golf. Mhm. di sant sama doom day cartouche. Ameth Aïdara maa lay woo ci combat bi. cartouche mi ne France cartouche mbër magam dafa euh, génn àdduna ñu ko ñaan yal na ko yàlla xaare yal na ko yàlla yërëm xaare nit ku baax di sama xarit sama combat bi ñaar fukki moo nekkoon seen tête de film waaw may yëkkati may maa ngi sant Pam Mama bu baax daf may jàppale Pam ma Fall maa lay woo ci combat bi di sant sama turandoo Elton di ñaanal daf may taxaw di ma jàppal sama combat bi trois cent mille la ma may Elton maa lay sant doom yaay di la gërëm di sant Thiam Thiam defarkatu portable ak doomu ndeyam Alsane Thiam alsaan alsaan wàcceel micro bi. di sant Thiam defarkatu portable ak. alsaan mais ko wax muy nooy alsaan di xaritam day dee de kii fi mu ne lim jël bokkul ci moom. may ma ma eggale tey moom wax dëgg yàlla moom sa maraay kii fexeel ba booy wàcc nag nga nga parce que kare yi dafa ratax ñun bëgguñu fii ay ay ay. kuris gi rek mën na koo diisal kii. kurus yi sept kilos la mais tey sa couleur yi dafa bëri doon na soixante cinq kilos lii dafa ëpp yow xanaa seen waa kër gisuñu la ah dàll yi nga xam ne xeewi na nga sol ko nii yow lii lii lii lii di yoon sax parce que sëñ Tuba lii du yoon kii xanaa day sàmmi lii du yoon ah? lii du yoon ah oh. lii du yoon mais dàll yi dafa xeewi voilà di sant Modou Mbacke Modou Mbacke joxaani couture moo moo génn fii moo ma ñawal jasneer bii barke Seydina Mohamed Modou Mbacke aw ma sa fay Modou Mbacke waaw Modou Mbacke maa lay sant bu baax moo ma ñawal jasneer wuy ma dama ne woon tey bu ma fekkoon sa waay sol. ouz bu yàgg boobu noonu bu ñëwee ma may ko beneen. ouz ouz ouz ouz. maa ngi sant Modou Mbacke lii demal nga sol ko yow yaa ra yaa gën a rafle ñëpp boo rafle wutoon doo sol sa 65 ah, kilos yi. boo rafle wutoon doo sol sa 66 dama noonu tey bu ko indee moom may ko yére bi. déggoo li ma 66 bi da ko sol ba benn 6 ba dafa daj. déggoo li ma mais yow déggoo li ma la yaa yow yaa gën a rafle ñëpp sa. cent quatre vingt cinq couleurs la sol sa waay cent quatre vingt cinq couleurs nga sol yow yow yaa gën a rafle ñëpp di maye looy maye Modou Mbacke maa lay sant ah, moo ñëw Modou Mbacke sant ya euh, joxaane ba may gale moo ma ñëwal dernière bi ba mu yegg maa ngi sant Ndiaga sama teer di sant Oustaz bu baax daf may jàppale yow li ngeen bàyyi may gale bas yow nag yaa koy tooñ continuer waaw du ma xam nga bàyyi bas bàyyi mu wasaare lamb bas yal na la yàlla dafa gudd fan dafa la wér-gu-yaram bas yaa ngi nii fi mu toll boo jógee fii nga dem hôpital sa benn bët bi baaxul. bas yaa ngi nii tey benn bët bi baaxul def beneen euh, soxla nga bàyyi soo yëpp xaar ñëw. loolu lépp bu amee gannaaw yàllante bi ak ku baax ki nga xam mooy Ousin di ñaanal ñoom ji li ñi fi nekk ñëpp di bu ma jógee foofu ci am portable taalibe Seex jàll suñu course bi nga xam ne moom moom ma yor ca. maa ngi sant coach su Lamine Faye daf may jàppale sama coach su Lamine Faye waa école de lutte Balla maa leen di sant di leen gërëm ñi ci am combat yàlla na leen yàlla may ndam ñi amul combat yàlla na leen yàlla may combat di sant mbës di sant mbës école de lutte Balla Gaye di sant Lamine Golo l'homme fort porteur de voix waaw porteur de mooy koo koo xam ne si boo waxee nit ñi da lay yow jàngoo xamoo dara parce que naxa naxa wéroo my friend don't talk to me maa la gën a dégg ah yow yow neex lenn daal man damaa dégg anglais you inside my heart booy maa la gën a dégg anglais fuuf you don't speak English Yeah. Me, I speak English very ay Gambien nga fi làkk anglais laa la wax waxuma ay Gambien nga fi làkk. Please. Écoute. yes. di waaw di sant Vito Vito coach Vito coach tam ne saalu golf ba ak Diallo coach. Kaal Diop Kaal ak seen waa kër Moussa Ndiaye ak seen waa kër Wëz Dem ak seen waa kër Laaj Sabale ak seen waa kër Zal jaata ak seen waa kër. aywa Malick Diatta lii ba jàmm la Malick yow lii ba jàmm la waa kër. yow looy mel ni kuy kuy. Abou Diagne Abou Diagne Youssou Diagne. famille Diatta Diatta yi famille Diatta Diatta yi famille Diatta Diatta yi bàyyiwuma kenn. famille Diatta Diatta yi ñu baax lañ famille Ndiayeen tamit ñu baax lañ dafa nekk ak famille Kone Kone yi famille Njóobeen Asom jaata Asom. asom sama rakk la sama xarit bi may bëree xam nga jigéen mu jëndal la ticket yu bëree bëri xam nga kooku baax la asom yaa xam li nga bëgg asom jaata yal na la ko yàlla defal yaa ak say mag ñoom awa ak ñii ñëpp ak ñoom Malick jaata ñoom Sall jaata bàyyi kenn daaw doon Njaay sama rakk Ousmane Njaay sama rakk maam góor Diagne Turki Baye Cheikh Diagne Baye Cheikh Espagne Zozo Maroc di sant sama yaay pël sox Pikine Khady Diop ak Baye ah. Sall taxi driver. di sant sama jabaru patron yi. ñoom Aysatu ak Seynabou maa leen di sant bu baax di leen gërëm. Tamsir maa ngi koy sant ak 50. parce que doomu aadama ñi lay ñi ñi lay. di sant baaba waa mafia bësal bii bi. sama waa maa ngi koy sant. di sant fan si club bébé Elton bi. Moussa waaw di sant fan si club bébé Elton bi ñëpp maa ah, leen di sant di leen gërëm. waaw di sant waa géej waaye di sant 50. baaba di sant waa àddina ak waa àllaaxira waa àddina ak waa di sant waa New York sama sama ah, percal bi andi woo non percal non yow kii kii day sóob man xam na kii daa xam dara mu kii lool day soob du sang kii day kii xamal xamalala day garde guddi gi boo moytul garder guddi gi nan la rey dama lay wax lu leer nañ. garder guddi lay def xoola maa ko romb foofu seddaay bi jàpp ko mu def. li nga gaañu léegi. maa ngi sant si sa téléphone daf may jàppal. daf may jàpp kii day sóob waxuma lool boo bëggee yow fi ngay liggéeyee chaque weer maa lay fay yow chaque mois boo bëggee fi ngay liggéeyee. yow da am loo lekk bay fay kenn. gën bu fekkee yow am nga xaalis. boo amee xaalis dëgg nga xool te daa xam ne yow. yow lii lii nii. bu fekkee moo ko moom Ouzin na la may euh, na la may cinq mille may ma cinq mille bon yow sa carte bi carte dara da cee def bu fekkee bu fekkee bu fekkee dafa ku am xaalis xama nan lay la waxuma loolu dam lay ku am xaalis xama nan lay la parce que tam lay def xaalis génneel génneel ma xam ne kii am na yorul eh. carte bi na génne carte na génne génneel carte bancaire jàmbur la ay waa jële jàng du lu ci bind carte bancaire jàmbur la lu ci bind. mooy yow xamoo parce que jàngoo xamoo dara. bu fekkee carte bancaire la bul wax tur bi de mais xoolal. xamoo dara waaw di sant waaw nga bii bu yoroo xaalis yoroo xaalis. carte bancaire bi pochette bi ci carte bancaire dafa bare bii carte a génne. pochette bi pochette bi carte bancaire bi. pochette bi nga bii carte bancaire bi ko gis. waxuma loolu na la génne poche bi carte bancaire la baax lii li ma yor ci carte bancaire dafa bëri bii carte bancaire bii nii. fu ma dem bii réew jàmbur la jël indi fii. bii sama bos la kii moomu ko. bii tamit sama bos la. dégg nga mun naa pour wan la pour wan la ni la man kon moomu ko. pour wan la ni la man réew yi fu ma ci dem ak mën naa fa fu réew yi fu ma ci dem. yoroo dara. damaa yor ba yoraale seen damaa yor ba yoraale bii. kon war na leen man fu ne laay génne xaalis. yëpp laa yor yow lii rusoo ko sax génne yii. yow champion jàmbur yi yow kay champion baa ngi nii champion baa ngi ni Ecobank bi champion baa ngi ni dafa am xaalis lay demee ci jàmmaar waaw maa sant maa lay sant Ouzin di la gërëm di sant sa caméraman bi di sant Jili Wasaare di sant waa Géej waa ñëpp dañ may jàppale xam nga di sant waa golf di sant waa golf marché poisson bi lay gën a jënd loolu moom moo moom moom loolu loolu moom moo waaw di sant di sant sama patron si sa téléphone daf may jàppale parce que heure bu làmb ji méttee damay dem ci moom may liggéey ci moom maa ngi ci station Ola bi golf ci station Ola bi fi mu jaaxaarloo foofu mooy këram maa ngi koy sant bu baax si sa téléphone di ko gërëm dafa may taxaw di ma jàppale di sant képp koo xam si yaa ngi bëggee bébé Elton maa lay sant di la gërëm di ñaanal Ahmed Aidara yàlla na nga jël maire Guédiawaye Lat Diop Lat Diop yàlla nga jël maire Lat Diop ah. Lat Diop ñu lay ñaanal yàlla nga jël affaire tey gis nga man man émission bi sax mënu ma koo canaliser di leen jox dig daje beneen yoon ci jàmmaarloo ak wasaare làmb di jaajëfal sëñ Bas bu baax baax di leen gërëm yéen ñaar bu baax a baax mais sëñ Bas temps yi dafa mel ni dafa am xale maris de ah <laughs> temps yi dafa di leen jox dig daje beneen yoon ci wasaare bëggee waa wasaare bëgg nañ ci yéen kontaan.